yaa jëf ci kóolute geeg bàyyi xel suñu programme waxtu xibaar yi jot na sënkam jukki leen ko ci kàllaamee ko ci war ma salaamaaleykum ca bop xibaar yi jappale ne kon Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñinga ci conférence de presse ginnaaw seen libération ni ki démb moom eh, ñaar yooyu nga xam ci parti ex pasteur jamono ji mom Bassirou di candidat bu boobu lépp di eh, coalition Diomaye président eh, ñom seen jotaay ba Ousmane Sonko nak jukki na fay cadeau ci ñak ko top ci walum li ñu wax sax aux sorcières wa jàpp nañ ni yoon danañ ko jëfal bes ñu ci réew mi manam justice bi danañ ko daal delo delloo fa mu dañ ci ñew ci yenen ci. ponk yi nga xam ne jukki nañ kon seen jotaay boobee ñuy séq ak naataango yi taskatu xibaar ci jamono ji ñuy àddoo ngeen di sax Jumaay Fay moo yore kaddu ga dañu wax ci euh, lu jëm ci kon euh, la ñu bëggoon ñu gànte élection présidentielle yi ñoom Mamadou Diop Decroix ak ñoñoom euh, gànt na leen ko waa Cour suprême ne leen déet fii ngeen ko doon see nag du fi ronqa ñi waddee jàpp leen ne kon mënul nekk mu nekk loo xamante ni kon ñoom jàppees nañu ne daal du lu ñu rafet lu ci mën a am daañu leen teewlu ci jotaay xibaar yi ñoom ñi demoon ngir ñu neenal décret bi nga xam ne moo wootee collège électoral bi ci nag ñaar fan ak ci weer bi ñu nekk développement ngir dem ca mbañ gàcce yi daañu wax euh, ci euh, xibaar ci wàllum tàggat yaram Aliou kon daal di nañ siiwal euh, fanweer ak benn footballkat yoo xamante ni bëri nañ ñuy yees peq ñu ca nekk bokk na ci kon siiwal gi mu ko siiwal moom Aliou Cissé di 31 jours yooyu am nag ay yees yees yu ci am ci ay nouveaux joueurs daañu ci ñëw ci boobu lépp lim ak Aliou Cissé mi coach bu équipe nationale bu Sénégal daañu dem bitim réew ak réewum Russie nekk ci élection yi jamono ji ak Vladimir Poutine mi nar a ci juróom-benn toogoom maanaam sixième mandat yeneen ci ponk incha allah mu daal di buur jotaay bi ci kanam ñu faram fàcce ko jaan jëfal dañ leen baax a baax rafetlu seen ànd ak suñu euh, programme ak seen qualité yi ni ñu ko waxee sànq ci njëlbeenu xibaar yi euh, ci yaatal gi noonu lañ ci sóoba jàppale ne kon jamono ji ñuy àdd ngeen di teewloo Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko ñu nga ca ab conférence de euh, presse ngir nag daal di jàkkaarloog askan bu Sénégal waaye tamit ak seen i nattaango bokk na ci li nga xam te moom moo soxal kon lu jëm ci jo Diomaye ak Sonko waaw ñoom ginnaaw seen kàddu ñu jël gis nañ ne daal fi mu nekk ni daal seen affaire di ab liberté euh, gis nañ ne Ousmane Sonko moom neen nag tey jii la gën a ngir euh, jàppale candidat bi di Bassirou Diomaye Faye ngir mu am ndam ci élection yu ñu dëkkmal jàppale ne fi mu nekk ni kon mm, victoire boobee du lu ñuy naatable tey bu leen yàlla dogalee ñu am bopp lépp ndam sax topp gi di nag tànk baa ngi fii lañ ko rëbbee man naa ba a amee noonu maanaam li ñuy wax chasse au sorcières la mu xam ne nag mooy euh, xëy na rek jéem a suubu ci wàllum justice di yoon jëfal liggéey bu ni mel ginnaaw bi nga xam ne ci 2024 bii kon ñu fas yéene euh, jàppal tànk seen mbër moom nag daal dina ñëw ci Amadou Ba ma nga xam ne daal na ca kawam waaye jàpp ne ab euh, adversaire am la ci mën di am moom firndeel moom leader coalition Diomaye président bi nag daan nay delloo njukkal ñenn ci ay euh, ñi caabi féete ginnaaw di ay détenu ak it euh, ñenn ñoo xamante ni def nañ seen i sacrifice ci euh, seen kanam ba ci ñi seen bakkan wadd ñoom ñi yëpp daan nañ leen di fàttaliku te nag fa yéene leen a gën a jàppale ci loru googu nga xam nag loru nañ ci ak seen njaboot moom Ousmane Sonko del si bu baax a baax ci lenn li nga xamante kon am na ci ñàkk euh, sàmmonteeg yoon ak it lu jëm ci report bi nga xam ne jàppoon na ne mënul nekk tey àndu ci tey àndu ci ëllëg élection yi dafa war a daal di mën a nekk luy am jamono jilee ñuy àddoo ngeen di teewlu kon mu nekk ci jamono ji benn barab bu nekk file ci ndakaaru dañ fa am seen jotaay bi jamono ji ñuy àddu sax jàppale ne euh, Diomaye fay moom moo yore euh, kàddu gile ñu des ba tey si ñoom ñoo ñooñee sax moom Ousmane Sonko ak Diomaye Faye démb lañ leen daal di may leen seen afiyam di ab kon génn kaso euh, ba ñu génnee nag jàpp leen ne nekk nii mbooloo bu takku ñoo leen euh, toppi woon mu mel ne xel dem ci équipe nationale bu Sénégal ba ñu jëlee kan biile ak ni réew mi xumbe woon te bari woon ay jubilé lu ci mën di am am satu gànnoo daan nañ ci indi ay leer. démb alxamis ci guddi fukki fan ak ñeent ci weeru mars bu ñu nekk Dakar daanaka nag xumboon na lool ginnaaw ba Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye Faye génnee prison li ni mel tax na senegale yu bëri daal di leen gatanu gatanu bu am maanaa bu ànd ak woy fecc ak yeneen xeetu mumbaay ngir teeru ñaari ponkal yu ngan ko opposition bi de mooy Ahmadul Bachir Ahmadul Bachir de mooy de mooy mooy fii ci dakaar ak yeneen i gox-goxaat yi foofu nag amoon na ay xumbaay rawatina buntu kër usmaan Sonko fële ci cité kër góor gi nga xam ne ay militant wam ñu bari dañ ko doon xaar waaye tamit ngir firndeel seen bëggeel ak seen bëgg-bëgg ci usmaan Sonko ak kii di Bassirou Diomaye Faye mangook ñu mën a jàpp ne kon ñoom ñooñu seenu génn day tax carte yi ñu redistribuer ko maanaam séddalewaat ko am geneen euh, soppik xar kanama ko làngu politique gu Sénégal jamono jili ginnaaw bi nga xam nag ñoom seenu génn sax mën nañu jàpp ne laale nag li ñuy wax lu waa bi yëm ci wàllu amnistie di ak jéggal goo xam nag jóge na kon ci far lépp lu jëm ci ay xeetu def-def yu euh, dëppook 2021 ba jamono jile mu nekk loo xamante ni njiitu mi moo ko càkkoon bañ yóbbu ko assemblée bañ mujjee koo jàllale loolu nañ ci gëstul bu baax a baax ñu teewlu ko. Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye yoon teg na leen loxo niki alxames gi ñu daal di am afiya doon nag mbégte ak bànneex ci patriote yi niki alxames gi ci guddi ñu daal di ko fësal daal di teeru seen leader bi leen di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ginnaaw ay fan ci ginnaaw bi ñu yëgle seen génnub kaso doon na lu ñu teg bët ci guddib alxames gi mu mel ni mbébét bu njiitu réew mi amoon daal dina antu ndaxi nag ñoom ñaar ñi lii di loi amnistie ba ñu wote woon ci assemblée nationale doon na lu yombal seen génn ci kaso bi ko ak ginnaaw bi ñu ko génne woon ci liste électorale yi delluwaat nañ ko ci doon li daal di dëggal sàkkuteefu juge Sabassy Faye ginnaaw bi mu ko xamle woon ca tribunal bu Ziguinchor tuwénaar bu Ndakaaru daal di ko dëggal leneen ñu mën koo xamle ci génn kaso ñaari leader yi lay te mooy pëccoxoo yi ñu fas yéene indi ci campagne électorale bi ndaxi nag xel xalaatu ni ñoom ñaar ñi le dinañ am aafiya waxtu wa ñuy amal campagne électoral bi mu mel ni njiitu réew mi Macky Sall dafa daal di nag jaxasewaat carte yi waral ba ñu samp ab laaj te mooy ndax dina doon luy arrange candidat bu benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba ginnaaw coow li ñu nemmeeku woon ci candidature am jëm ci biir APR waaye tamit ñeneen ñu génn kaso Ousmane Sonko bi mën a daal di indi a jiixi jaax ci élection yi te mu bokk ci Idrissa Seck Khalifa Sall moom nag Bassirou Diomaye Faye ñu mën a jàpp ni waxtu wi tembe lii di ay chance yi mën nañoo jàpp a yokk dooleelu ak njàmpandalu ak kile di naataangoom di Ousmane Sonko waaye tamit nañ ko sàkkoo woon ñoom coalition Diomaye Président ngir seen candidat bi le mën a génn def campagne mu mel ni daal na antu ñoom ñi nag di xamle ni niki tey aljuma ji fas yéene nañu daal di amal nag janoo ko taskatu xibaar lu mooy loolu daal di amal nak ab caravane ngir daal di lii di seen campagne électorale bi daal di gën a saafanteeg seeni militant ak seeni am di jàmm ginnaaw Abdoulaye Dieye cant ak ngërëm ñeel la ba tey ci wàllum campagne électorale boobee jàppale ne kon euh, ba tey kandaay ñi ngi wéy di amal seen wërngal ci biir bu Sénégal euh, ci euh, daanaka fa nekkoon capital bu Sénégal di ndar gi di Saint-Louis daanaka mën nañu jàpp ne wërngal nañ ko niki démb tàngoon na lool ak i candidat moo xam moo leen ñu nekk ci nguur gi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci ku gi ku ci mel ne Amadou Ba ak yeneen kandidat yi am na ñenn ñu seqee jiko dëgg ma di foofee ca bët gànnaar ca ndar géej ak la ko wërngal foofu lay ci boor bépp barab boobule dañ ci ànd ak Mansour Diassé daan nañu koy tënkal. candidat Aly Ngouille Ndiaye di maire bu commune bu ngeer moom nag amal na démb ci alxamis bi tukkib nemmeeku fële ca Cambérène jaar fa dem seeti kii di Serigne Seydina Issa di xalifu laayeen yi ñoom ñaar nag waxtaane nañu foofu foofule ci lu jëm ci jàmm réew mi yeneen i yu jëm ci wàllum sécurité kii jiite parti réew mi di Idrissa Seck moom mu nga woon ca Mbour ki jiite coalition Idy Président 2024 moom nag xamle na fa ne dina def lépp lu mu mën ngir suqale li di Petite Côte bi ki jiite coalition Thierno Alassane Sall 2024 moom nag mu ngi wéyal campagne am ci biir réew mi gannaaw ba mu jógee fële ca Touba coalition Thierno Alassane Sall 2024 ci biir mbedd dëkk bi di Daara daje ak yenn ci ay militant gànnaaw Tambacounda ki jiite mouvement tekki di Mamadou Lamine Diallo moom nag mu doon fësal programme am fële ca Fuladu Mambwe Djawo di kandida Koalisyon Djawo 2024 ak kandida Benno Bokoyakar Amadouba, nyom nak nyon gawon Foufoule Tiasen Lui, Nyi Diwa Pur Tamit, nyon gawon Tiasen Lui, Dagana ak Podor, Koalisyon Djawo Mai Prezident, ngakamne Liberation Leader Dembousse Goudi, nyon gawon Tchage Djawai ak Fidi Kermasar. cënd ngërëm ñeel na ko moom di Mansour Diassé ci campagne bobé kanda bu parti bu pouvoir bi di bu nguur gi Amadou Ba ni ki ci alkhamis kon ma ngon ci diwan Podor mom njiitul ben bok yaakaar ñu dalal ko fofé ci euh, diwan ga ak maire ba di Mamadou Racine Sy and euh, ko nak ak mbolo bu tak bo xamante ñoko ko tertu foofu lay ngir nak woné sen jàppandal ak et gis ni amna ñu yaqin ak yaakaar ne ci élection yi ñu ci 2024 yi ni ci 24 mai bi 24 mars bi lay na yakar nañ ci ndam gu am solo lool dañ ci and tewlu ci euh, ay kaddu Amadou Ba euh, ci population de Podor, Je souhaite la bienvenue au candidat Amadouba. Nous disons oui à Amadouba, Ba, qui est le meilleur rempart pour le Sénégal contre toutes les dérives qui se passent dans, notre pays et dans la région Amadou nous prions Dieu pour qu'il exerce nos voeux, que tu sois le cinquième président de la République du Sénégal. Amen. Vive Amadou Ba.

dina bokk ci projet yi njëkk a sóobu pour ñu mën a désenclaver Podor bi gën fi yomb. département bi dafa yaatu. am na hôpital bu mag bu ñuy defar ñun. Podor mooy capitale régionale départementale. dina am ay infrastructures yoo xam ni fii lay nekk. vous aurez le stade départemental fii lay nekk. dinañ fi defar école yu mucc ayib. parce que Podor bu aéroport bi bare te yàggatul. tourisme développé ko Podor dafa yomb. Soyons, infrastructure dans un délai court après avoir réglé définitivement les questions liées à l'approvisionnement en eau les questions liées à l'électrification à l'agriculture, électricité l'électricité, ma euh, ñu jox ci élection yi nga xamante sax euh, am ak amam la ñu euh, moo juróon njàqare ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Parti démocratique sénégalais ak seen ñi ñooñu ak ñi àndal ñoom Mamadou Diop Decroix ak yeneen i kuréeli politique yu ñaawlu li nga xam te moom moo di li xew ci convocation collège électoral boobee maanaam date bi ñu ko àppal moom moom nag Mamadou Diop Decroix ginnaaw dogal bi Cour suprême jël dàq ñoom seenu càkkuteef maanaam neenal ko loole nag ñoom nee nañ daañu ci jël ay matuwaay euh, donte euh, nangu euh, dékku nañ ko mu nekk loo xam nag am nañ ci tiis ak mbetteel ay kàddu moom Mamadou Diop Decroix Ndéla Ndiaye moo ko taataan. waaw ñoo ngi nii di soog a génn ci cour suprême xam ngeen yéen ñëpp ne danoo demoon cour suprême pour attaquer décret du président de la république signé pour convoquer électeurs yi. cour suprême wax na né requête yi ñu def c'est irrecevable manam manam mënu ko atté mom mënu atté euh kon fay tekki euh élection bi dina am le 24 mars comme ni ko décret waxé kon ci fi ñuy koy waxé ci ñuy teunku ci lolu waaye di fatali né naka jekk nun li nu mas bëgg te di continuer di bëgg mooy élection ci Sénégal nekk élection boo xam ne day day yaatu képp ku ci war a mën a bokk bokk ci bu fekkee ne mën naa am xayrul bu mënta amit ñu tënku ci li nga xam ne moo moo moom la ñu wax loolu loolu moo fi sus waaye tekkiwul nag ne ànd nañu ci loolu li ñu bëgg wax nañ ko. ma ngoog kon jëm ci li nga xam ne moom moo soxal ci wàllum euh, lii di rek kon euh, requête boobee ñu leen gàntal euh, ñu wax ci kaam politique ba tey waaye ci bitim réew foofee ca réew ma Russie ñu nga ci ay élection yoo xamante si kon mm, dañoo nara a tabbaat kii di Vladimir Poutine ndax nag lii de mooy élection yoo xamante ni man rek maa ca dem waaye benn kujjëru ca dem noonu lañ ko gisee maanaam amul benn concurrence ci wàllum opposition bi moom moo demal boppam mooy falaat boppam ngir toog juróom benn ayam moom Vladimir Poutine ñoo ne nag xew ca réewum euh, russi nga xamante ni kon euh, lu doy waar Russie ko nga xam daanaka jàppale ne ñoom ak euh, daal mm, Ukraine ñu ngi ci ab xeex bu métti ci jamono jile ci ay congante muy bëgg ëpp ñaari at yoo xamante ni ay sox moo am seen diggante ñaari réew yooyee période de vote nag ubbi woon nañ bu juróom-ñetti waxtu jotee. <clears throat> daanaka ngir nag ci alt ajuma ji ñu nekk ba nga xam ne daal war nañ ko kon dañ koy tëj ci euh, dimanche vingt bu jotee euh, ca Kalin euh, Kalin Kalin Kaliningrad Kaliningrad waa noonu lay amee foofu lañ koy tëjee ginnaaw bañ ko tëjee kon ci ay gox yu am solo ci foofu nga moom moo di kon ca réew réewum Russie nga xamante ni kon ñu ngay amal seen i vote moom sax vote en ligne la def moom moomay di Vladimir Poutine maam ci lu yees la jaare ak votam ngir ñu mën ko valider votam

amaat le tubaab naan du 109 ñu bees ñoo xam ne dañ ñëw ak ay avons yu ndaw Edouard Mendy Mori Koulibaly Abdou Diallo Abdoulaye Seck Aruna Sangaté Abdoulaye Ndiaye Diakhaté Seydou Sano Touré, Moussa Nyakate, Ismaël Jacob, Formose Mendy, Nampalis Mendy, Idrissa Ganegay, Pape Matarsar, Pape Alassane Gueye, Patissis, John Lopi, Chérou Kouyaté, Lamine Kamara, Abid Jara, Sadio Mané Eliman Ismail Ismaïla Ahmadou Bamba Dieng Mamadou Lamine Kamara Boulaye Dia Amara Djouf. voilà les moo ngoog uh, di woon kon football kër yooyu nga xamante ni ñu ngi leen doon uh, lim ci ñi nga xam ne daal bëri ñu yees peq ñoo xamante ni tàbbi nañ ci équipe boobee Aliou Cissé jiite uh, di équipe nationale bu Sénégal ñuy wax équipe A mbokk yi lii moo dëppoon ak liñ ci rëñ ci wàllum waxtu daanee këmm bul jeex jaajëfal lañ ci taaxeelu geeg seetaan gi may gër gi bu leen tuuxal seetaan ndax bu juróom-ñetti waxtu jotee soxna ajaratu Ourey Fall Diouf dana ma fi wuutu ci toogu gi di tël leen ko ci kàllaame tubaab di Molière